ci 15 ans benn mbër moomu ci daan muy Modou Lo 15 yi. mbër yi fi gën a leen daan. waa keroog rek làmb ji wane na ko. kan moo fa ñëw Balla moom moo tëj ci làmb ji ñaari yoon laa ko daan. Mhm. Bombardier moo daan Balla Gaye mhm. moo daan Modou Lo mënuñu ko daan. Mhm. dama ko daan la dageer mu dama ko daan match nii ak moom te ñëpp xam nañ match ni mu demee mhm. kon tey ñooñu ku mënul daan bombardier si ñoom ñooñu xanaa su ma bàyyi làmb ñoom dañuy dañuy dañuy ñoom mag noonu la demee xam nga man daan naa ñoom ku ñu mënul daan ba pare daan leen ñoom ba ñu jeex voilà ba ci giri boroo su ma ko may ñoom ñëpp dama leen daan tàkkusaan yi métti yu tar waaw combat yi gën a métti combat choc combat jànk yëpp maa ko bëre c'est que nekk ni mbër moo xam ne mënewu ma waa ok Eumeu Sène am na défaite amaat na defet yaa parce que man ñam naa défaite ñam naa victoire xam naa ñaar bu muy saf ok làmb ñam naa ci neex ñam naa ci lu naxari ok mais bokk naa man ci mbër yu bëre cachet yi gën a cher waaw parce que man sama cachet bu ma mujjee bëre ak Modou Lo 175 millions laa ko bëree waaw man du ma mbëru 45 millions mbëru 50 voilà loolu laa fekk demee fay nañ ma fay nañ ma 450 millions ci suma diggante ak Balla ak Modou Lo ak Bombardier li may wax ñoom Modou Lo ñu ngi may dégg ñoom Balla Gaye ñu waa waa kii ñoo ko bëggoon ni ko tey Escaf 450 millions ma leen du ma bëri ndax Balla bi ci bokk moo tax ok voilà loolu kon man bokk naa ci mbëri gën a cher voilà kon nag wax moo moo kiw rek man mënu ma di wax wala ngay bàkk wala dara mais incha allah maa ngi defarwaat maa ngi waajalaat te incha allah ci kàttanu yàlla dinaa ñëwaat te su ma ñëwaatee dinañ gis leneen incha allah maay waajal waaw bu baax maay waxtaan ak suma staff xam nañ làmb xam nañ yoon bi ok mi ngi yegsi na mooy jaaxal gars waaye mi ngi ñëwaat war la mën a jaaxal. dinañ leneen lu bokkul ak amu bi daan allah ñu waajal daal man gis naa sumay fans du dëgg gis naa sumay fans gis naa suma ginnaaw nu mu yaatoo gis naa nu mu tolloo voilà kon tamit aussi am na neneen lu ma seen war a ñëwaatee. te incha allah ñu ngi ciy liggéey ak suma staff maa ngi ciy liggéey tamit aussi ak sumay nit quoi. waaw dégg naa gars yi di ko wax xam nga ñoo ma seen nee na day bëraat ak Balla Gaye mais ba léegi dégg ñoo ma seen ba léegi dégg ñoo ma ñoom ñu ngi waxtaan ak suma staff ak nekkoon ba léegi mii fu ma nekkoon ba léegi maa man ma wax ba léegi quoi voilà c'est important quoi. fi nga nekkoon mooy dootoo bëri ma waxoon <laughs> d'accord xam nga waaw comme président bi engagé wu nañu ko bàyyi ak moom. waaw non non xam nga tey tamit aussi nit dafa am lu ma wax. ok xam nga toujours su la quoi. voilà waaw xam nga 450 millions moom rejeté ko du caaxaan quoi voilà exactement quoi mais bon yàlla baax na ko àdduna ñoo ko soxla jàmbaar combat boobu mooy combat bi nga xam ne nii doy na waar déggoo ma ne bu ñu demoon kooku kooku déglu naa ko bu baax a baax baax xam naa ko bu baax ci nu mu ci nu mu bëggee Balla Gaye ak nu mu mel ci moom noonu la nit da ngay mën sa nit xam nga ragal péete day xañoo wërsëg man dama ko seetaan mais dama kontaan ci moom xam nga parce que dama bëgg nit bu nit bu gëm nitam ko ok yàlla xam nga dama koo seetaan mais yàlla mu ñax tiim xam ne dama am cofeel ci moom ba muy wax mu koy xool damaa xam ne vraiment ak fu mu jaar xam nga xam naa moo su ma su ma doon bëreeg Balla Gaye moom bu mënoon jinne bu teq sama tànk bi comme comme hmm? ma ne comme Pape Sarr ci moom moo raw ñëpp moom bokk na ko Pape Sarr romb na kooku kooku mënagul waaw kooku kooku li Pape def ko Pape Sarr am na kagul ah. xam nga man man damaa ñibbiloo borom kagul. waaw te hmm. fi mu toll nii. lii tax làmb tollaat fi mu toll. Hmm. mooy garçon wala nit ñu ko laa génne xaalis ba textile bi moo Balla Gaye. est-ce que dégg tax làmb dundaat ñun dañu bëgg làmb na ah nu mu ci daa taxawoo rek. xam lu may wax tout rek man maa seen mag man maa leen boot. seen bés suma bés la te ma seen Pikine moo ko ñor waaw man Pikine laay fayatal du dëgg. ama mu koy ñaanal mu nekk roi des arènes booy ñaan dama koy ñaanal mu daan jël bu gaaw parce que man ba may toog di wax ni euh, Pikine am nañu relève boobu amaana man xale bu tuuti laa du dëgg voilà boobu ba léegi tam aussi sant yàlla parce que li gën a métti mooy nga toll ci moment bi ci làmb ba pare sa ginnaaw xam mu oyof mais ay nekk na ay ay ay ay champion yu mag yu saf sàpp nag waaw du ma def lu ñaanal leen xam nga ama maa ngi koy ndam xam nga mu jël mu revanche booy ñaa maa ngi koy ñaanal tamit aussi mu daan jël bu gaaw incha allah yàlla mun na ko. non du ma ko loo dara amul lu muy moytu ci moom làmb mbër boo demee bay moytu ci moom dara rek des nga ko waaw mbër waroo xam lu lay gaañ ak lu dul gaañ ok mbër boo paree waroo ragal dara man yàgg naa ñëw ci làmb sama adversaire toj xaal man jël ko lekk ah. waaye du ma la faale sax waaw yooyu moom. mbër moom ama gisuma lu war ragal ci moom ah sérieusement du xeex bu du bëri bi waaw làmb la. mais ak dayo ñaa hmm. bis mënatu leen dépassé parce que am nañ mbooloo pigé nañ seen ginnaaw. ok ba pare tam aussi différence bi rek mooy roi des arènes bi ak ñàkk nekk roi bi mais seen combat day fees del combat gënu ko comme yàgg nañu bëri événement non mu liggéey rek bu paree moom gis nañ ni gisuñu leen lu war a mën a tax lu ko mën a xañ dama ah. mm. na liggéey mu préparé ci lépp ah ci wàll lépp galaaj ak lépp parce que làmb loolu boo mënee bëree te mënoo xeex da ngay dem toogee soo bëggee bëri te amoo fit da ngay bàyyi soo bëggee bëri te amoo galaaj tamit aussi di dem mbër dafay complet quoi bu lépp matee moom non bu ñu tëddee dañuy nelaw amuñu dara ñu xaar te xam naa ni ñu koy sekk ku ci mel ni si bale champion la waaw li ci war nekk da ci nekk ñun tamit aussi nu ñu ci mën dinañ ko ci def bu laajee contact lu mu laaj rek dinañ ko ci jàppale ci lépp moom ak Boy Niang daal vraiment xam nga gis nañ ay champion lañ xam nga toll nañ fi gars yi toll toll nañ fi gars yi toll ah waaye te dañuy indi kenn gënu lañu yaatu ginnaaw te li ñuy wax ci mbari mu ngi si ñoom waaw dinañ ñaanal daal ñoom ñaar ñëpp